daal di rassembler ndax jigéen nag mooy jur te dafa war a tëddee jaaxaanaay ndax jàmm rek nag moo jara ñaan euh, Amaro li nag mooy slam dëgg la waaw mais balaa may continuer am xam nga palmaan am sama réalisateur bu ñaaw bi palmaan day ñuul dëgg la waaw day ñuul kii xam nga internet bi dafa gaaw affaire yaa ngi tax waaw day kii xam nga loxo yi commencé na lëndëm <laughs> Aïssatou Diop Fall nañ ko defoon lay ba ñu def ma ko damay leeral rek di jaajëfal nag waa am Chic bu baax a baax vraiment di leen jaajëfal parce que xam nga ni dafa nekk plateforme boo xamante ne mënuñ wax 8 mars waxuñ ko parce que jigéen yaa ngi fay dugg di jooy ay solution ñu ngi fay euh, génn bu baax a baax di leen jaajëfal ñoom ñëpp ñëpp ak euh, admin bi sama xarit <laughs> tekk nag yéen <laughs> Omaro nekkoo fi de nelaw de. nelaw ma de sa kër yi bëri na tey ci internet bi. non xas xas est-ce que. Omaro jaaxle damaa jaaxle man. billaay ndeysaan xoolal sedd. sunu doom yii sunu set yii. billaay ndeysaan. réaliser lii. dëgg la xam ne mënuñoo am lu dul waaw yaay la mu saxalaat tey ci ci ci diggante olof. Mhm. culture olof. Mhm. ñu jékki-jékki ne culture séeréer culture tukuleur. Mhm. lan moo leen loolu base ba mooy. jàmm ji baas ba mooy ku ci bég ba ñaanal sa morom la nga ko ñaan yàlla mu dal ko ku ci mere ba ñaan yàlla sa morom la nga ko ñaan yàlla mu dal ko waaye loolu dalu leen xool lii nga lii lii nga réalisé lii lii man mi nga xam sama set sax moo leen mag ma daw ba ak sama sët ma daw ba ak yàlla ma ak yonent bi sama ñaari waajur Cheikh Saliou Cheikh Béthio ma bëgg a wax ak yow lii nga def du yëfi gune déedéet yal nañu yàlla yal nañu yàlla faj cat man de tey tey tey man bu ma dee woon sax tàll ndax la ma doon xalaat du ñu am suñu ginnaaw héritier mm-hmm. dëgg xalaat ngeen di yàlla ngeen gudd fa amiin yaay yaay jàmm gu njëkk ga mag ñi na nañ daan jubóole démb bu njëkk ba bu coow daan am euh, xam nga mag ñi euh, seen xuloo sax daan na am waay dañ daan dem ba juboo ci woy juboo ci taasu juboo ci waxtaan juboo ci doom yi ànd juboo ci lii nga def yow yaa ngi ci pee di li lii mooy pee mm-hmm. waaw astu tey yow tam ma bàyyi la ngay tukkalal tey tey naka nga gisee vraiment li nga xamante ne mooy mooy mooy thématique bi parce que tey xam nga ni dañoo ne unité mm-hmm.